bu loolu jàllee ñu tàbbi ci biir réew mi ak li ci biiram ndax réew mi ñi ko séq dafa bari te seeni jikko dafa waroo te am réew bu kenn ku ne nare weesu ab cëram nar naa yóbbaale cërub jàmbur te fii réew mi toll képp ku xàmmee te am looy ràññee nar nañoo tàyyelloo say xalaat ngir bëgg ñuy nelaw gën a yàndoor ndax réew mii di senegaal li ne woon a dimbali population bi mooy ñu amoon sensu kilifa diine yi xam seen bopp mënal seen bopp doyloo la ñu am bu boobaa kenn du ci réere ab cëram ci réew mi te lu ca waay wàññi mu xam ko tolluwaay boobu la kilifa diine di toll door a mën a taxawu ñamu jamonoon teel ndax seenu déggoo ak gouvernement waroon naa amal njariñ population bi li ko waral amul kenn ci ñoom ku état waroon di xam sa benn soxla bu dul soxla askan wi askan woowu yow kilifa diine bi ñoo ànd ak yow te ay carte boolewu leen te ñu ay carte fal la leen di fal yéen folliwu leen askan woowu ñooy jur doom tudde leen ko lu ñu liggéey jëkk leen ca sédd te bu ngeen dee liggéey lu fay du leen ca war te lii lépp benn homme d'état amul darajaam te ndoona lii xool leen fi ngeen ko jëlee ndax ba xam yokk ngeen ko walla wàññi ngeen ko wala soppi ngeen ko loolu nag melow njaboot gi mooy doon tontam ndax bu jëkk ku masaana jur doom te bëgg mu niru la jikko bu fekkee jàngaloon nañu la faaw nga jàngaloo ko bu fekkee yaroon nañu la faaw nga yar ko wala nga yarloo ko ku la jikkoom doy ku ñu jàngal yar ko nag du foye diineem waxuma la di def lu yàlla tere te du wax mukk lu dul dëgg du dugg ci lu yoonam nekkul te du yéene ab safaan benn jullit wala muy suufeel benn doomu aadama moo tax ñi ñu fi jàngal yar leen ñoo fi dese jikko yu baax ku leen mënula roy nag doo soreeg bàyyi may aw melo nit nag bu nitewul du mën a xam boppam te ku umpale sa bopp doo xàmmee cërub kenn ba di ko jox wàcc waayam jikko yi xew ci jamono ji nag li tax neexu fee jële ña daa defar jikko yi seenub lim bareetu fi te barab ya ñu daa defare jikko yi bari na ci barab yoo xam ne boo ko jubee seen fa lu jar wàññiku ndax bari na barab yoo xam ne la fa mag ña jiwoon jébbeetu fa bari na nag lu nar a yàq gàncaxu mag ña ña waroon a taxawe mbay ma ñoo faf booyal tool ya te lii xew ci njaboot yi wane na ko te mooy njaboot gu dëng te say wayjur mënulaa jubbanti loolu nag lépp lu koy sabab wayjur wu ne war na koy moytu kon ndax kilifa diine yi noppi war na leen ci doxinu réew mi am ñoom li ñuy sàmm lu ci jamono soppi neex na leen bépp kilifa diine nag bu jàngalewul diine yarul kenn ci diine ji ñay yàqal diine ji te ñay yàqal diine ji sañu leen a artu te lu ñu ko jox mu jël te fu mu leen war a waare ci diine faf leen ko soppil ay kàdduy ngërëm boole ca nag ay ñaan yu mu wóoluwul ak nangoom kon kañ la jamono nar a jag su fekkee ñi war a gindee ñoo faf noppi ci kanam ñi réer kon ku bañ ngelawul jamono yóbbaale la ana fooy moo tax àdduna nax na te teeyal ko dootu yomb àdduna nag fii mu toll ku la fi gën a sell gën laa ragal yàlla moo la fi gën a néewle ay wéttal ndax wéttalam dafay jafe te koo wéttalikoo te boo wéttalikoo nit ñi bàyyi yàlla bis bu la sa borom soxlaa ñu wan la ginnaaw bàyyi la ak moom kon tee nga wéttalikoo ki jëkk ci yow te balaa tàggoog yow jëlsi la ni mu la fi andee woon kilifa diine yi ci réew mi kilifa di kilifa diine yi ci réew mi nag ñu ci bari xamuñu lu xew ndax kilifa bu bëggee fu mu toog mbooloo wër ko wéy ci ay xalaati jàmbur moo koy gënal diisoog ay bokkam li ko waral nag ab jàmbur bu nanguwul a liggéey ak mbokk mu ab juddoom rax kilifa gu ñu jaxasool mën naa waral say bokk sori la kon kilifa li gën ci moom bañ a doyloo xelum boppam walla muy diisoo ku ab dépensam doyul ndax kenn du am soxla su fajoogul yaakaar ko ci nit ba noppi di ko wax lu wér fii ci Sénégal nag tariixa yi fi nekk te mag ñu baax ñu sell taxawe woon ko ba kenn mësu koo róor te ci seeni jamono nooni islaam yi jaar nañu leen fu nekk te booba xàmmee sam noon jëfewul ndax foo leen seen xàmmee leen waaye la ca musaloon mag ña jiite woon tariixa yi mooy dañoo doyloo woon seen boroom ba tax soxlaa lu ñu woon ña jóg ngir xeex seen diine ba noppi la leen war ci seen diggante ak seen boroom moo leen gënoon a ñor di jaxasoo ak ñoom ndax mag ña seen aajo yàlla rekk lañu ko daa diis waaye mbindeef daawul xam seen tolluwaay te foo leen masaan fekk ñi ngi ñi ngi yëngu ci luy tasaare diine ji léegi nag dafa mel na barab boo fi dem liggéey ba fa njiitul tarixa ba bàyyi woon ña nekk ca biir di yàq moo ëpp fuuf ña cay defar moo tax tarixa bu ci ne ña koy saytu waroon nañuy natt di xayma at mu nekk seenum njàngale ci wàllu diine ji lu ci dolliku ak ñaata nit lañu tuubal ñu dugg ci diine ji moo tax lii xew léegi képp ku ko jàngat yëg ne liggéey bi des na lu bari te li ko yokk mooy da cee bari ñu ci am ay responsabilité te jaluñu ko te fii ci Sénégal li fi ëpp ñi ciy tuub kenn waaru leen ci diine dañuy coobarewu moo tax ñu ci bari dafa am lu ñuy gëstu bu ñu duggee ba xam ko dal di génnaat léegi nag li feeñ noonu islaam yi nga xam ne ñoo toppoon mag ña mësuñoo tekki seeni laxasaay moo tax tariixa bu ci ne ci réew mi samp nañu fa seen mbër muy tuddoo tariixa ba ba noppi juddoo fa xam fa lu bari te yooyu mbër nag li ñu làmbul li ñu làmbool ku ñu fekkul nga defaru bu ñu la songee daan la te képp ku xalaat ne mag ña la ñuy bëreel bu pënd ba wuree da nga xam ne mag ña la leen waroon noppi nañu ca kon nag tariixa bu ci ne na bàyyi xel ci ne mbari yooyu di song tariixa yi pas-pas bu wér moo leen di daaneel waaye kuy am soxla àdduna te yaakaaroo ko ci ku dul yàlla lu may sa moroomam jaam na la wóor ne muccegoo ci ñoom ndax li ñu yor bari na te ku ñu ko xëpp say bët muuru Sénégal nag sëriñ siy wane melow cëriñ ca kaw te méngowul ak la ca biir dafay bari te noonu la amee ci ñuy tuddoo ay taalibe te xamuñu ne juddu ci ak cëriñ yor melawa da koo gën tuddoo ak taalibe it ak bari feem yooy jommale sa mbokki taalibe ngir di ko dolli ko dara darajey àdduna ak di leen dajaleloo seeni alal jaarale ko ci seeni pas-pas ngir man koo jariñoo waaye képp kuy dox ci loolu balaa ngay génn àdduna danga xam ne ñaqu donga yi caaxaan yóbbuwu ko bu loolu jàllee réew mii di Sénégal réew mi di Sénégal nag ñi ko séq war nañuy waxtaan te kenn ku ne wàll wa nga féete nga yor ca wenn melo tamu lalu ci ak dëgg rawatina ñi ñuy tudde ay njiit ci réew mi moo xam ci wàllu politique la walla mu nekk njiitul entreprise wala sax mu nekk njiitul diine ak lépp lu nit di yëngu ci réew mi te ñu jiital la ca lala war mooy saayoon yoo noppee maandu ba mënatoo jubal la taxoon ñu jiital la feexe la delloo cër ba ña la jiitaloon senegaal nag fal nit folli ko te merul moo ki bokkam yomb fi waaye kuy jubal bala ñu ko folli mooy bàyyil boppam ndax ku jub dëgg du soxlaa xëccoo cërub njiit mbaamu di ko yootu te bu demee ba amu ca pexe am nattu la koy jàppe réew mi nag wàll woo dem da nga fay fekk mbooloo mu waroon a nekk ca kanam ñu sànni leen ca gannaaw te duñu leen geesu te loolu kilifa diine yi waruñu ci woon a fekk si politiciens yi am na nag ay kilifa diine yu nekk ci réew mi te la leen seen maam bàyyeeloon moom lañuy sàmm kon bokk ab juddu taxu la niroo jikko moo tax kër goo fi dugg kër goo fi dugg tey loo fa xamoon tamu soppiku ña seeni jikko soppiku ñoo ko fa indi dana jafe lool ci am réew nag mu jëm ca kanam te waa réew ma yéenantewuñu jàmm ba noppi bëgg seeni soxla di faju te duñu liggéey te ku ci yor dara yéene sa moroom ak ñàkk te ku ci feebar doo am loo fajoo te koo joteel moo lay tooñ ba noppi sànk la kon nañu farlu ci jàngal ndaw ñi te yar leen te ñi jubul ñi jub jubbanti leen ñi nga xam ne nag suñu borom dénk na leen wërsëgu àdduna nañu xam ne du seenu njàmbaar yàlla dafay tànn askan wu ne ñamu cay dénk wërsëg wu bari ngir yaakaar ci ñoom la mu leen ca sant danañu ko def waaye li ëpp ci borom alal yi bëgguñu ko jaar ci seen alal bay manal sa bopp te war nañoo xam ne ku xëy di am lu ëpp sa njël wàllu ñeneen da caa nekk boo leen ko bëggee xaj nag yàlla boole la ak jàngoro joo xam ne alal ji nga yor du ko mën a faj te bu sa waxtu faatu jotee doo ca yóbbaale dara te dana bari ñu jëfandikoo ci sa alal ginnaaw bu ñu la jébbalee sa borom te du ñu la gërëm moo tax war ngeen di gëstu fu ngeen tollu alal ji leen yàlla dénk li mu leen ci sant ngeen di ko def jëf ci yoonu yàlla nag moo gën jëf ngir àdduna te ni bi di fule jëf ci yoonu yàlla war naa soññ ku ne masalul lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sabha sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaa'ifu liman yasha wallahu waasi'un alim allazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah summa la yutbi'uuna ma anfaqu mannan wala azan lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxsanuun kon ku ci yor alal te jëfoo ci lu yàlla gërëm perte nga kii wut nag te yàlla joxagu ko bu mu yàkkamti bu mu xemmeem yëfi kenn ndax képp ku yàlla jox ay cër jox la am xel moo mën a jariñoo te doo ko foyee lu suñu borom namm ci yow lu ne doo génn àdduna mukk te jotoo ci kon sàkku alal warula tàqale kenn ak sagoom ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa waxe ne alaa ayyuhan naasu ajmilu fi bi fa innahu laysa li abdin illa ma kutiba lahu walan yashab abdun min ad-dunya hatta yatihi ma kutiba lahu fi dunya wa hiya raxima moo tax jullit dafa war a doylu tey taqoo akuk muñ tey bañ a yootu lu jotagul mbaa muy xëccoo ci lu dul ab cëram